xanaa da ngay wër. ah ma ne ko film da ngay wër. mooy waaw damay wër ah. may dem si oto bi taxal président kii bi quoi. nekkee fii rek ñoom la waaw muy sama moroom ñi nga xam ne nekk ay liggéeykat ak ñi nga xam ne mooy ñoom Fallou Souban yaay booy ñoo tax dara ma ni doom di jóg fii nii ñuy wax waxi Pastef koo ko wax mu ree la moom ko moo taxaw jóg na ñu ñaanal di ñu xelal di sant muy Moustapha Diakhaté dëkk ñu tontu ñëpp daal ndax ku lim tuut rawatina nag suñu trésorier Cheikh Mbaye Ndiaye mention spéciale à lui waaw coordination bépp ñu ngi leen sant di sant di gërëm tamit mboolem coordonnateur émi yi nga xam ne ci village environnant ya yéen a ngi fii teew ñu ngi leen di gis mais nag buñ sañoon kenn bu ne jël kàddu mais ku xool waxtu bii jot am na loolu lépp xaju fi mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu gis leen taxawaay bi bu ma ko ubbi di toog yor xaar lu ànd ak ñun ci caravane bi yëpp di sant tamit wa walu ñi nga xamne ne moom lañ àndaloon ci élection ñu ànd ànd rafet nak ak woon yalla ñu am ci liñ jàmm wa di wax président tey da ngaa ñëw cil maxa ci maxa nag ci bo boo déggee dund da am fum la yob da la ci soir yu bari parce que bu ñu wax histoire la jox te du mu tudd cil mu ñu wax tay histoire maam borom Touba du ñu tudd cil maxa duñu wax histoire maam Malick ci duñu tudd seulement parce que borom xam-xam yooyu yëpp daje nañ ci ni la xamal nak di ma tour tur wi mo moo jur jëmm ji bo xoolee suñu talib bii bi mu jaar xam ne bu ko gis ko ne nga xam ci jël ma xadu beneen bi ci topp moy walum santé am nañ problème bo donc ci walum éducation gaay am nañ problème bo réew mi dal emploi des jeunes tamit même tout démb bi nga jaaree ngaay gis na nga jaar si Cordonnier mais ay doomi cilmaxa ñi ngi foofu di liggéey ci Cordonnier mais amuñu ko leen jappal ay doomi cilmaxa ñi ngi fii tey di liggéey ci Jakarta ay amuñu ko leen jàppale maanaam secteur bo dugg doomi ci ñaa ñang koy ko te ñu kenn ci lenn liggéey rek ñu dugg tay jëna and ànd bi ñu àndaloon ànd bi ñu ànd ak yow ñi ku dégg ku xam pass yow xam ni nekk yow dafa metti parce que bu ne ngay dégg bu ne ngay dégg mais teewul ñu reculer benn yoon te incha allah dañ ciy dem ba jeex buñ a ragaluñ ci taayuñu ci ñu nag yow ba déwén kat kat incha allah ñu ngi lay jaajëfal baax ñëpp di naa taxawaay ñi ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax asalaamaaleykum wa mbokk si xam ngeen ma asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen masaw ndax xam naa ni yàgg ngeen toog di ñu xaar di leen gërëm it ci ni ngeen ñu dalalee nii ngeen ko defee ndax mobilisation macha allah donte rek nemmeeku tur bi sax. jubluwaay bi dëgg du woon ay meeting yu ñuy organiser ndax xam ngeen ni new ñu jamono campagne et dem fekk nit ñi seeni kër wala dugg dëkk bu ne seet ña fay kilifa ñu nuyonteeg ñoom parce que ñaare boo nuyoo kilifa yi dafa mel ni nuyoo gaawaak dëkk bi yëpp waaye gis nañ bu ñu doolee nemmeeku tuut ba léegi fuñ dem rek sénégalais dañuy génn massivement dalal ñu loolu lañu gis fi tay ñu ngi leen di gërëm di féliciter ñi yor liggéey bi yépp jiital ci coordonnateur ak équipe bi muy ay jeunes yu dynamique ñu am pas-pas ñu am conviction ñoo xam ne ñoom ni ci projet la ñu bokk jàpp nañu ñoom ni ay xalaat ak gis-gis moo leen booleeg ñun moo tax doonte gisewuñu doonte xamantewuñu dañoo xar seen tànk tubéy pour taxawal jëmmal parti bi fii ci cilmaxaaj li ko loolu mooy esprit passif waaye di gërëm xam ne dañoo suñuy naataangoon lañ ci politique dañu lënkaloo joxante loxo ngir jëree fi li bon li fi ne muy suñu mbokk wàllu senegal rawatina waa PDS yi fi teew lii rek de moo koy regle action yeneen ak yeneen bi ñu tasaaroo ku nekk dem gis nañu fi mu mujje waaye bi ñuy bokk joxantee loxo bokk ndey ak bokk baay defe naa tey assemblée bu dul woon ay njuuj njaaj ñëpp xam nañ ni opposition moo fay majoritaire waaye ak lu munti am ak lu munti am rek opposition doon na majoritaire ba ba noppi parce que moom mi yor réew mi fi mu ne nii téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn la am kon eggul juróom fukk fukk boo jël ñeent fukk ak juróom la am donc eggul juróom fukk amatul majorité fii ci réew mi kon nañu continuer di joxante loxo ndax réew mi lu koy soppi tey dépasser waxu parti politique ndaam kenn ku ne am na foo far waaye li koy soppi mooy citoyen ñu jiital ni ñun ñëpp citoyen Sénégal lañ te Sénégal dafa nekk en danger kenn ku ne parantala ci moom mu jiital intérêt Sénégal ñu jëlee fi danger bi fi nekk te danger bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy Macky Sall ak ñi mu àndal. bu loolu weesoo nag dinañu waxtaan tuuti. ci li ñu bokk muy réew mi plateur am na lu mu lim léegi ci ay jafe-jafe balaa moom dem nañu kër boroom dëkk bi di imam en même temps mu am lu mu lim ci ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu dara um ñu ci woon ñun ndax li wokk cilmaxa moo xuri senegal yëpp nag yëpp képp ku ne am nga sañ-sañ nag ne man sama dëkk bii laa am sama tali bi sama post de santé bi sama courant bi sama tool yi sama ndaw ñi amul liggéey kenn ku ne am nga sañ-sañ wax ko sa dëkk waaye du lu ñu mën a saafaraat ci ab dëkk moom dong amane fi mu ne nii jun ñëpp dañu war a jël suñu yitte yëpp suñu xalaat yëpp suñu gis-gis yépp waye dañu wara jël suñuy suñu doole ak suñuy démarche li ñuy def suba ba ngon jot pour réew mi ñu jëlaat ko tek ko ci loxo wa réew parce que dafa am lo xamné gis-gis la bu yaatu bo xamné ci état lañ koy lañ koy dëxëñe ci état lañ koy nase appliquer ko mbollem sen Sénégalais gis ko kenn ku nek gis ci walam waye ku ñew fi ne yeen yéen ci baxa mën na régler seen problème te dëkk bi ñu mujjé bala ñu ñew ci Cilmaxa li mu tuddati sax Kër Mañaaw seen problème réglé wul koku waxu len du am waye ku len ne mën na régler problème am Dagana wala kafrin wala Kédougou réglé wuñu problème waxu len lu am moom rew mi ben bop la. da ngay jël lu mel ni nit dafa am ay cër am loxo am tànk am ay baaram am bopp benn mënul dem bàyyi sa morom moo tax Sénégal dañ koy defarandoo ñun ñëpp gis ko wala ñu continuer delloondoo gannaaw te defar Sénégal goon nag ci lañ toll parce que li ñu weesu yëpp ay élection la xam ne élection yu ñu mën a ne élection locale la bu ngeen tànnee maire fii meeru Cilmaxa la waaye meeru Cilmaxa ak ku mun doon xaw ma ko sax de mais bu doon sax meer bu dee meer bu baax la ak nu mu am am yéene defam dina néew ndax ni ñu dëxëñee état bi ni ñu ko tëralee collectivité locale yi maire yi dañ ko tëgg-tëgg boo xam ne collectivité locale warul am doole ba war a mun a def lu beuri man mi di wax ak yeen maire la lu beuri ni ñu dëxiñee affaire bi parce que dañ doon bañ nit ñu def ko maire mu réussir ba ñep gis ko bu ko defee Sénégal né ah ki dé comme def na li ci dëkkam buñ ko joxé réew mu défar ko motax Khalifa Sall bi mu commencé liggéey Ndakaaru ba naan day dem lebi 50 milliards pour défar place de l'indépendance ak yeneen ak yeneen yi ci lañ ko créer dossier rapidement yobbu ko kasso motax tax maire amul doole mën na am yéene ak li tuuti li ko état bi di jox ci transfert yi waaye pour mu régler problème mu tali yi régler problème mu dispensaire yi régler waaye nag ñi ngi jëm ci ndeyu élection yi élection bi nga xam ne ca la ñuy soppee réew ba faw wala ca lañ koy suuxalee ba faw Sénégal réew mi ni mu bindoo état centralisé la suis président de la république ci am ci suñu programme dañu il faut ñu ko il faut ñu wañi doolé président de la république parce que nit nit nit faire jël sañ-sañu réew yépp ko ci loxom rek dina rek ni la di di reye ku ne ànduma ak yow mu ne tey ma pexeel la te du taxaw ci ci ak te du taxaw du taxaw ci yitte askan wi jël alalu askan wi di séddoo moom ak ay mbokkam loolu nag bu gisee réew tugal yi ak li ñuy wax grande démocratie amu fa mooy fexe nañu ba kii jiite di président la République naam jox nañ ko ay pouvoir parce que dafa am solo mais encadré nañ ko ba sañ-sañam am na fu mu yem waaye ci fii toll nii ak ci régime bi système bi di dox dama bëgg kenn ku ne ci ñun xam ni lay changer réew mi mu ngi jaar ci ñu fexe ba am président de la république bu baax loolu rek moo mën a changer réew mi leneen mënul changer réew mi ñaan yàlla waye yalla yalla bay sa tol ñaan yalla waye yalla yalla bay sa tol ñaan yalla mu tanal ñu président bo xam dina jup loxam set dina jital intérêt askan wi ci bopam mom waxuma la nak intérêt wa bitim rew dina am gis-gis ci naka lañuy développer rew waaye dina doon un ba nga xam ne kenn ku nekk dina ko jox cër bi mu ko war a jox yàlla xool ci histoire àdduna moo xam ci histoire boo xam ne diinañu ko nettali te mu nekk ci téere yi moo xam histoire boo xam ne politique wala science politique moo ñu ko nettali ku xool histoire àdduna di nga xam ni yàlla jéppiwul kenn merewul kenn soxarewul kenn bëri na lu ñuy dal ñu koy jooytu waaye suñu responsabilité la ñun joxe ci misaal yu ndaw moo tax ñun ñu ne suñu dox yi ñuy dox dañuy farataal dëkku kaw gi bàyyi dëkku taax yi fële ne ñu ngi dem ci dëkku kaw gi ñaar ba ñett moo tax bi ci njëkk mooy dañu xam ñun ni ko bëgg a développé réew ci kaw gi nga koy développé réew kenn du ko développé ci taax yi ndax mbay càmm napp ak industrie mooy développé réew te ci àll bi la ñuy bayee dëkk kaw yi lañuy ñuy bayee dëkk kaw la ñuy sàmmee dëkk kaw la ñuy defee industrie ressource naturelles yi ngeen di dégg yëpp zircon or phosphate ak leer ak leneen ci dëkku kaw gi la ne nekkul ndakaar nekkul Thiès nekkul Mbour waaye mi ngi fii ci dëkku kaw gi koom-koomu réew mi mi ngi fii ci kaw gi ku bëgg a réew milliards yi ñuy ay jam ñaajo tabax ay immeuble loolu développer wu réew milliards yi ñuy jël naan ñi ngi defar ay autorail ay stade ak ay BRT ak nangam nangam loolu amul benn impact koom-koomu réew mi du dul rek pour que réew ah ñun de am nañu terrain boo xam ne am nañu stade boo xam ne mi ngi mel ni stade stade de France waa est-ce que ñun ak France a tolloo France fi mu jaar ba mën a ma def stade am ñun jaaraguñu duggaguñu sax ci yoon boobu waxuma laa ñu ngi fay jaar. toll nii tabax koom-koom la ñu toll ñun tabax koom-koom ndax koom-koom mooy régler problème mu dund bi dund bu cher bi ngay dégg yépp ñàkk koom-koom ci réew mi bu dee li nga soxla da nga koy jéggaani ci biti la ngay lekk sax mënoo ko bay ci réew mi yow amoo koom-koom mooy créer emploi man su ma dégg ñu naan emploi des jeunes emploi des jeunes samay mbokk jeunes yéen laay waxal fii léegi réew mi mi ngi doxee nii muy doxee du ngeen am emploi xaalisu réew mi la jël dajale ko di ko jox seeni militant li ñi di ci noos waaye mënuñu créer emploi parce que pour créer emploi il faut nga tabax économie il faut nga am koom secteur primaire dox secteur secondaire dox secteur tertiaire dox mais ben ci yooyu doxul nga damay créer emploi da ngay nax sa investir ci dëkku kaw gi ba mbay mi dox cham gi dox napp gi dox lii ñu yàlla wërsëgale ci ressource nga xamné ne kenn xamul nu mu toll te lepp tuba bi diko ko ci réew mi. phosphate a ngi fi zircon a ngi fi est gis ngeen ko lépp ngi génn ci réew mi dama yem rek ci département bi pétrole gaz sax mi ngi fi ci Gadiaga ndax ci département bi la ay nit ak ci am ay milliards yi milliards te waa département bi ni ci am sax tali waxuma laa école tax du dox pour ñu régler problème bi foog ñu tabax koom-koom te nee naa koom-koom ci kaw gi lañ koy tabaxee moo tax ñu ne nañu dem waxtaan ak suñu mbokk kaw wax leen suñu yéene ndax réew moo xam ne mënatoo sax jox jiw baykat bi semence certifiée mënatoo ko jox nit ñi engrais mënoo ko jox nit ñi mënuloo leen fay njëg bu baax ci suñu ci ci lu tuuti liñ ci am ren mbooñ gi moo ëpp gerte gi ndax semence yi baaxul ba pare ñu ne deux cent soixante quinze lañ lay fay ci gerte gi amo droit nak dem jaay ko marché parallèle ñu la ci fay 375 wala 350 waaw est-ce que ñi jité réew mi am nañu yërmande ci askan wi est-ce que am nañu yërmande ci askan wi foofu lañ ci tollu moo nak ñu ne leen ak nak diñu wax ni yépp moy sétlu nañ ñi dekk kaw gi lañu gëna sakk fii cilmaxa gi ñu ne Macky Sall def na dix ci bopp réew mi est-ce que mun ngeen ma génneel ñaar wala ñetti réalisation yoo xam ne mën nañ leen lii lu am solo la ñu def ci cilmaxa amul de nii mu ñàkkee fii la ñàkkee nag fépp fu ñu jaar ci dëkku ak dëkku kaw bi fépp fu ñu jaar ci dëkku kaw bi waaye li ma gën a jaaxal malgré tout ça nag ñaare taax yi nga xam ne fa la ñu def alalu réew bi taax yi bu élection jotee lépp lay ñàkk waaye dëkku kaw gi ñoo koy dooleel loolu day na lañu man la ñu gën a sàggane waaye man maay dooleel ki may toroxal ndakaaru def alalu réew mi yëpp te du gagné élection Dakar Touba Mbacké def na Ila Touba ubbi na fu opital bu bees tàq def na lii def na lii 10 ans musul gagné Touba. du Ziguinchor du la du Louga du Ndar li may wax nii mooy mooy capitale régionale yi yëpp da koy ñàkk te pourtant foofu yëpp def na fa dara waaye kaw gi mu seetaan ba ñu lot ñoom ñooy jël seen carte di ko jox doole. kenn mënul ne ñàkk xam la jamono jii ñu toll ñëpp xam. ñëpp a xam fii ma toog nii ñëpp a ngi yor seen seen téléphone di xool ñi ngi ci internet bi ñu ngi ci facebook bi ñi ngi ci yeneen ak yeneen ñëpp a xam moo tax nag fiñ jëm fiñ jëm li ñu dëgmal dama bëgg ñun ñëpp ñu dégluwante li may wax dafa am solo de li ñu dëgmal surtout yenn jeunes yi li ñuy dëgmal fa la mën a jóge baax ba faw wala ñu suux neew ma ba faw de waaye nu mu tuuti tuuti dinañu suuxaat 50 wala 75 ans jëm nii te lépp nag mi ngi ci loxo askan wi ndax bukki bu yabee waxambaane nag nañu waxante dëgg ndax askan wi moom mooy fal kenn du fal boppam maire du fal bopp fal boppam euh, député du fal boppam président de la république du fal boppam askan wi mooy fal ki nga xam ne nag bu bëggee day ñëw naxanteeg askan wi ne fal leen ma bool wuti koo yëpp askan wi rek ci askan wi la ndax li ko fi jëlee mi ngi seen poos ci ñi ko yoragum te dinaa ci ñëw senegal war nañoo weesu te gëm naa ni sax weesu nañu loolu en tout cas mi ngi commencé feeñ ndax soo seetee ñaari élection yi weesu ah li ci feeñ moom waree ni Sénégalais a ngi yeewu de waye war war nañu wessu fu ñuy lu am solo lu melni ni président de la république ko xam sañ-sañu réew mi ngay tek ci loxom ci juroomi at te boko xasse ba tek ci loxoom mënatoo ko dindi tank juroom at yi jeexul kooku duñ ko tanne ci caaxaan kenn du ko tanne parce que ki la bokal ki moy sama xarit ki mo ñëw jox ma 5000 ak t-shirt ki la bokal serigne kii laa bokkal dëkk bi ma dëkk déedéet kenn du tànn ci loolu bu doon ab japonais mooy jóge fële sax mu leer ñi ku ko jox réew mi mu defar ko mu ne cocc dañ ko koy jox kon nañu settantal bu baax ndax tey kenn mënul ne xamatuma di woote ci politique bëri na lool waaye yéen am ngeen ràññee li leen bàyyi fii ba heure bi te joxuñu leen 1000 francs joxuñu leen t-shirt dégguñu leen lu dul yéen a ñuy déglu di ñu suivre ba am fu ñu egg ci seen xel ngeen jàpp ni lii moo war a defar réew noonu la amee ci Sénégalais am na nag jéego yu jox a def ba egg si fii léegi coordonnateur wax na ko nee na bi muy door fii ñoom bi ñuy door fii jafe woon na amna ni bo woran nan pasteur dañ na nan yeen xana ab daayira ngeen jafe woon na de tay yi nak ñi ngi sant yalla amna fu ñu yegg te lolu dañ koy sante borom bi ndax fakastal yi ak ndëgg sërëx yi bari na torop waye yalla lu mu nam neenañu bi mu nammee li mu namm ci Firawna dafa dafa dafa màggal dafa màggal ki war a fol ni Firawna ci kër na ci boppam mu yent yàlla Moussa loolu la olof naan garab gi nar a doon guy defe naa law bi du ko gis ba di ko gor yàlla suturaal nañu ba tey jii waxuñu ko pour fëgg dënn waaye ñëpp xam nañ ni ci langue politique bi guy lañ ci fi mu toll nii. waaye nag waaye nag est-ce que dinañu nangu laaw bi nga xam ne gisuloon guy gi bi muy doon du ndaw ba xëy rek romb gis muy guy mu ne xaaral ma dem jël sama semmiñ ñëw gor ko est-ce ko nangu. loolu benn la loolu benn la ñaareel bi mooy li ñu dox ba yegg si fii dañ ko war a mottali te loo gis ci àdduna rek mu njëntal bi moo ci am solo fi mu ne nii terminer liggéey bi fukki weer ak ñeent moo ci des ñu war a yeggali li ñu door loolu nag dafa laaj kenn ku ne ci ñun tàkk ndiggam dëkk bi wax ak sénégalais yi parce que am na ñoo xam ne xippeeguñu ba léegi waxtaan ak ñoom jarul xuloo jarul xeex am ngeen programme bu baax am ngeen ay leader yu baax kon yéen seen projet neex naa jaay dem leen ngeen waxtaan ak sénégalais yi li waa ji demoon di mbirum sole ne woon ñun duñu taal réew mi dañuy taal xel yi dem leen ngeen continuer taal xelu sénégalais yi ñaareel bi mooy fi ñu jëm ñëpp nangu nañ ni xare la xare nag ku ciy dem da ngay ut ngànnaay ngànnaayu xare bii mooy am carte électeur bu les jeunes laay waxal ñenn ñi am nañu buñ buñ ko gaaw buñ ko buñ ko lem ñenn ñi am nañu waaye li ma leer ba leer mooy jotaay bii am na ku fi am nu mu tuuti tuuti fukki at ak juróom-ñett te amul carte loolu moom xam naa ko waaw kon léeg soo ñëwee ci jotaay wax carte électeur da ngay jéggi ñenn ne am nañ ko am nañ ko boo yemee boo yemee ci loolu rek ñu yóbbaale la ñun waxuñu ñenn am ñeneen ñi ñàkk ne ñëpp am carte électeur parce que nit noo sopp sa Ousmane Sonko noo gëm-gëm projet bi taamoo carte électeur amoo njëriñ am nga jëriñ waaye amaloo jëriñ projet bi moo tax ñu ne kenn amul droit bañ a yor carte électeur am mag ñi am nañ ko mag ñi am nañ ko depuis ay at ñi ngi yor seen carte électeur fu élection jot ñu voté waaye ñun dañ ñoo féetale ndaw ñi nee nañ ndaw ñi Ousmane Sonko la ñu àndal te ma gëm ko waaye su ndaw ñi ñun lañu àndal man war ñun war ñu woon ñàkk élection Sénégal ndax Sénégal statistique yi li mu wone mooy téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróomi ndaw lañu kon ndaw ñi rek joxe nañu victoire au premier tour ndaw ñi kese rawatina nag jamono joo xam ne mag ñi ñi ngi fàq gën a far ndaw ñi léegi ci projet bi kon ndaw ñi laay waxal seen mag mooy waxtaan ak yéen seen baay mooy waxtaan ak yéen ndax sama sama taaw man day wote kon ku fi am fukki at ak juróom-ñett mat naa la bàyyi. du tax a sonn wallaahi yàlla mi mu tiit seen avenir moo ñu tax a sonn yéen rek yéen ñuy tax sonn yàlla na ci am nañu yërmande trop ci yéen te dañu xam fi réew mi ak fi mu jëm suñu gàppul récupérer ko def ci liñ ci war a def yéen yéen a tax ñuy sonn ñun soxlawuñu dara ci politique salaire u sax duñ ko jël amul lu ñu bëgg ñun ci politique lu dul rek jaamu ci yàlla ñaan yàlla ëllëg yàlla fay ñu li ñu doon daj ci suñu askan jaajëf sax bëgguñu ko waaye nag ndimbal da cay fekk loxol borom parce que ñoom dañuy fexe ba xale yi désintéressé wu ci politique gëmloo xale yi ni politi bëgg a gëmloo xale yi ni politiciens yëpp ñoo yem bëgg a gëmloo xale yi ni bu leen toppatoo affaire politique wax leen ci football bi ci làmb gi ci leneen ak leneen léegi sax ñu leen dugal ci ay pari foot ak yu kenn xamul ba duñu tol yéen a ngi reetaan rek xam naa ne da ngeen di xoos mooy naar bi naar bi loolu nag loolu nag dañ leen di nax ndax loolu tabaxul seen avenir dañuy waxtaan ak yéen rek diggante mag ak rak dañu nangu nag ni ci jamono ji comme ñi waroon def defar réew mi defaruñu ko ku nekk nu mu fajee ay góomam lay xool waaye waroo sax ci loolu dañu war a ñun yeewu am perspective xam ni lii yàlla teguñu ko te lu yàlla tegul nit rek nit mën na ko dindil boppam moo tax ñu ne leen seen avenir ñun bëgg nañu ngeen dund Sénégal bu gën suñu Sénégal ñun ndax xam nañ ni mën na ne ndax yàlla def na fi lu ne waaye dañ ko yor dañ koo téewul suñu bopp li ma tudd yëpp ci ressource naturelle bis bu ne saxaar gi romb fii di génne engrais seen chim di yóbbu zircon bi fii CGO GCO département bi amu ci sax tali te dañ leen ne woon bu ngeen ñu dénkee réew mi ñu renégocier contrat yëpp delloo si alal réew mi ci réew mi kon nun dañu am yéene ci yéen waaye yéen ñu mën a jàppale pour yéen ak yéeg yéen rek ko mën mooy dem leen ngeen bindu bu leen kenn gëmloo ni nii da ngay perte sa temps dem di grand suba ak ngoon jeune bu nekk fii xale du góor yi bu nekk mun na jouer match quatre-vingt-dix minutes wax dëgg yàlla dem uti carte électeur moo gën a yomb lool kon ndem leen ngeen ut seen carte ku ci amul carte d'identité ëllëg nga ut sa carte d'identité bu ñu ubbee liste électorale yi nga dem bindu boo bindoo ba pare bu la dara xaddiloo su jaree dem jaabante téeméer yoon nanga dem ba jot sa carte électeur waajal 2024 génn voté massivement ba pare toog sécuriser vote bi parce que xam nañ ni ñu ko sekk loolu bu ngeen ko defee bésu élection heure bi mbir mi féete na bor. bu boba nak yeen wàccoo ngeen ak ñun ngeen xol ndax liñ len wax suñu digganteeg suñu borom di ngeen ko gis wala du ngeen ko gis wàccoo ngeen ak kon fi le Sénégal tollu ñun suñu première responsabilité moy di waxtaan ak nit ñi pour permettre len ñu comprendre ñu xam lan lan lan mo xew ci aduna lan moy enjeu yi ak lan mo tax Sénégal ñu nekk ci situation bi ba tey sénégalais bo lal ma ngay jàmbat li ci gëna gatt moy mooy dund gi moo dem 2012 saaku ceeb la xottu saaku ceeb la doon yor naan gaa yi dund gi seer na ceeb bi doon jar 250 fi mu mi ngi jar 450. lii mooy suñu combat. lii lañu ñëw waxtaan ak yéen bëgg a sijanteeg yéen bëgg a chartanteeg yéen parce que ñun duñu ñëw di dige loolu weesu na sénégalais kenn mu leen ndax ñëw su ngeen ma falee seen tali bi seen hôpital bi seen di déedéet donte dinañ ko def am nañu yéene bi waaye xam nañ ni am na lu jiitu loolu ci liggéey waaye dañ leen ne benn nit tabaxul réew dañoo bëgg ñu joxante loxo fasante kóllëre fii nun de bu ngeen ñu jiitale du ñu sàcc alal ci jël dërëm kaso nga jëm bu ngeen ñu jiitale alalu réew mi dina des ci biir réew mi sénégalais yi ku nekk jot ci wàllam ñu séddale ko ci seddale gu bu ngeen ñu jiitalee réew mi dina am jàmm ak aafiya ak démocratie ba kenn ku nekk am sañ-sañam ak yeneen ak yeneen ak lii lañu bëgg a chartoog xam nañ ni ñu fi nekk yépp am nañu yëg-yëg bi moo leen bàyyi fi ba bi waaye liñ leen di ñaan rek mooy ñu gën a takku gën a góorgóorlu parce que nag bu ñu ratee 2024 dina métti de dina métti torop te dinañu toog di mat baaram di wëccax naan suñu xamul kon yàlla tàccu nañu bi mu fi andee richesse yu bëri dafa dafa meññal ci réew mi ab génération boo xam ne dekki na yaakaar askan wi moo war a sàmm loolu ba ñu mottali liggéey bi te gëm naa ni waa Thiel Makhad nañ ko def ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah góor gi day wa rahmatulah waaw président Sonko ñu ngi lay nuyu di la sargal di la ñaanal li may wax nag tënk bu gàtt lay doon daanaka lu xaw a niróo conseil conseil lay doon jëmale ko xale yi nga wax ak jëmale ko ci yow mii ndax jàpp ne man fala nga jàpp dama jàpp ne 2024 yow ay laa jàpp ba pare kon li may yëkkati ay conseil ne ko xale yi nag li nga leen ci wax doy na sëkk passif bu mat sëkk ngeen war a am ci seen i yëngutu ak seeni i dal kenn bañ leen a jënd bu doon nit ñoo xam ne sax ñuy jaay la bañ leen bañ leen a jënd ndax ku kuy jaay ku ne am ñu am sa njëg moom li yées ci doomu aadama nag mooy mu jaay ngor topp bi danoo nekk ci réew moo xam ne jaay doole dafay bari dafa am benn activiste polonaise bu ñu daa tuddee Rose Alex kii Rosa Luxembourg Rosa Luxembourg dafa amoon benn situation bu def bu am solo dane indama yusbihu الظلم قانونا yusbihu tamarudu waajiban nee na saa boo xamee ne tooñ nekk na loi nee na doomu aadama bañ fépp day daal di nekk devoir tey wax na dëgg tooñ bu nekkee loi fépp day nekk devoir ci ki li ñuy dund kon dañuy war a bàyyi xel bu baax a baax toujours nag li ñuy dund nun ak li ñuy wax moo di dañuy jéem a convaincre doomu aadama yi jëfandikoo wuñ violence physique jëfandikoo violence verbale def naa ne ku amut argument mooy def loolu sax jëfandikoo ñu jëfandikoo bi ci topp mooy président euh, dafa am ñaari euh, article yoo xam ne bindoon naa leen daaw moom it ci situation boobu laa benn benn bi ma la tuddee léegi situation boobu laa def benn article am beneen article boo xam ne dafay wax ne as-sukuutu anil haqq shaytaanul ku gis dëgg noppi ca seytaane su lumu nga lu am lu mat a bay xel dafa am benn boroom xam-xam boo xam ne mu ngi doon dund Égypte ci vingtième siècle bi ci première kii bi ñu koy tuddee <clears throat> Jamal Din Afghan dafa def acte bu am solo ndax dafa doon dem ci euh, quartier populaire yi di yee doomu aadama yi ni leen nguur gi ni note ak ni muy jëlee seen droit ak seen i àq ak ni leen di néewale doole yàlla dogal na xam nga ay police euh, yoo xam ne police police bi dafa am ñu dikk yóbbu ko ca buur ba ne ko kii kat mooy yàq gone yi yàq gone yi maanaam li mu ci jublu mooy kii yee gone yi moo ne moom yàq la ci moom mu yóbbaale kurusam ci biir palais bi moom jamal dina xam di yëngal kurus gi nii benn policier dikk ne ko xanaa yow da ngaa dof ñëw ba ci palais fekk fa buur di yor sa kurus di ko wëndeel mu ne ko waaw kiy foyee ay million ci Sénégal ci ci ay égyptiens am ci droit man awuma droit jël sama kurus gi di ko foyee boobu taxawaay li ci topp mooy ñaar laa lay muy conseil yu ma la wax man jàpp naa ne fala nga ba pare mooy déclaration politique générale bi nga xam ne xalifa euh, ci njëkk nekk xalifa yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo defoon muy Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu dane fal ngeen ma day te gënuma leen ngeen topp ci man jàppale ma feek di jubli ma leen te xamal ne dëggu kóllëre la fen trahison la léegi maa ngi topp di respecté constitution bi na ngeen ma jàppale bu ma ko respecté du nag amul droit ci topp topp topp topp ma maanaam lànk leen loolu la waxoon problème booba te boobu mi ngi nekk 632 la nekk euh, moom ñaari at dong la nekk xalifa ñu ci ki ci toppaat muy Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne 710 17 ba 719 moom it ñaari at rek bi ñu ko falee mu nekk amirul muminin daa dem fekk jooy jabar ja fekk ko fa Fatima ne ko yow koo xam ne dañ ne jullit yi ci adduna yaa leen jiite nga nekk fii jooy mu ne ko xam nga lu tax may jooy mu ne ko déedéet mu ne ko képp ku ci ak dégg jàmm ci li ma moom liñ ma dénk du ma jéggi sirata yàlla laaju ma ko képp ku ci xiif te lekkoo wala nga mar te naanoo wala nga rafle wala nga war a te fajuwoo wala ñu gott sa aq du bu jéggi sa rajo yàlla laaj moo tax may jooy fii président xoolal loolu xoolal loolu kuñ dénk mu mel noonu nga xam ne wóor na lee yegg na ca yàlla da ko jàppale ca nguuram ba mu ko yoree dañu wax ne boo génnee asaka sax doo am ko jox ndax ñëpp am nañ maanu ga moom la yàlla dimbali ci maanu nag dafa am solo dafa am benn philosophe bu ñu daa wax joxaa dafa am benn bis muy jàngale maando yemale yamale nit ñi ñu ne ko yow da ngaa dof yaa ngi ci jamono joo xam ne yamale xam nga ne mënut am pen fu mu dem rek ñu yuuxu ko ne ko yow ngaa dof yemale xam nga ne yemale amut mu ne kon day toxoo dëkk boo xam ne wóor na maano yemale mun fa am dafay toxoo daal di jël mbat daal jël bagage yi ñaari bërigo mu def ko ci benn takk bi bërigo mu def ko ci benn takk safir mbaam mi rek mbaam mi daanu moo ko tey nag moo ko ci jàngale am benn baay bu ne ci atas bi ne ko yow da ngaa dof xanaa xanaa mu ne da ngaa war a yemale sa fii moo tax mu war a mën a dal ci combat mu ne ah loolu laa wax ngeen ni jóge fi di yamale leen laa wax ngeen ni ma jóge fi c'est-à-dire kon jamono ci boppam lii dafa mat a bàyyi xel doomu adama yéen gone yi da ngeen a war a yu te xam ne réew mi ci seeni loxo lay mucc comme ni mu leen ko waxee. waaye nag na ngeen fexe ba kenn mun leen a jënd doomu adama war naa jombale boppam. 5000 francs ñu jox ko ko mu def ko ci poosam jël ci aw kartam wëlbati ko wommati aw bëyam jaay ko ca daral ga 20000 francs jaay boppam 5000 loolu mooy mooy ndiku ko yéen xale yi surtout yéen yi ñëpp la ñuy wax la ngeen baal na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر ما خلق من شر ما خلق أعوذ بالله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من خلق واطه بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم على النبي وسلم وصحبه حاجة كل مسلم أصبر ستوري أصلح أموري كسر قلوبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق طيب قدره مقدار عظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا jërëjëf bat